un an laa def ci président Macky Sall. yow ko yow ñoo représenté. non dama ne APR laa bokk. depuis un an. mu jël ña sos APR de souci. Mhm. authentique ya mhm. ak ki nga xamante ne ñëw na fekk si ko mu jël fee ñaar jël fi kenn. Mhm. c'est un bon message. luy sama mérite ce que je représente et la vision qu'il de moi ba muy nekk président assemblée nationale maa ngi moom on était à l'assemblée nationale xam na quel député j'ai et combien de fois les gens. les vrais députés m'ont apprécié demande à Doudou Wade kii Amadou Diarra ici. mais bokk na léegi bokk na si ñu ko tëbaloon de bokk na si ñu tëbaloon Macky Sall président assemblée nationale. Mame Birame Mame Birame léegi pour ne pas personnaliser la <laughs> euh, le treizième législature bi. Euh, ñu ngi koy waxaat fii démb Pape Sané ak docteur Malick Diop que ñi fa nekkoon ñi fa nekkoon député fa nekkoon ñoom seen bopp dañu am du mal à défendre leur propre bilan euh, là ñi ngi defaraat nañ ay liste Amadou jare wax na sànq ne am na ci ñoo xam ne lañ liggéeyoon fële xëy na baaxul dindal leen ci lis yi ku nekk présenté nga ay liste ñi ay suppléant kese lañ am ñi ay titulaire kese waa aar présenté nañ ay liste ñeneen présenté nañ est-ce que euh, yow mi aventuré un peu à liir les listes là est-ce que profil yi nga gis yaakaar nga ne dëgg-dëgg li ñuy xaar ci quatorzième législature bi dinañ ko am Euh, non je ne le je ne le mhm. que déjà moom dafa am amalgame bu mu def ci waxam. Mhm. maanaam euh, mu ngi ne Benno Bokk Yaakaar warul def bilan bi parce que Moustapha Niasse il même pas investi. Hmm. par un exemple c'est un exemple. exemple. Hmm. mais warul demee noonu tey jii nii bu nekkoon ne dañu war a def bilan wu Benno Bokk Yaakaar. Hmm. almeeru ñing moo koy def. Ah. Paa Moustapha Niass Paa Moustapha Niass.

clair léegi léegi mu ñëw ci ay maire. donc Moustapha Diagne n'était pas le chef du groupe. c'est ça que Mame Birame veut dire. moo yóbbu groupe bi assemblée. moo doon tête de liste nationale bi. allez-y allez-y donc moo war a ñëw def bilan. Hmm. donc bu ñu demee ba bëgg a wax. dans le cadre Benno Bokk Yaakaar. Hmm. ñoom seen coalition bi. jàpp ne dañoo war a def bilan. Hmm. te effectivement comme nu nga ko waxee noonu la war a demee. ce n'est pas Amadou Hott moo war a jóge ak je ne sais ñëw taxaw yi di woowee grand muy joxe ay éléments yoo xamante ni sénégalais yi war nañ ci mën a sukkandiku. pour votel benn votel benn. Mhm. loolu waxu nas nasa xasan nag la. je suis d'accord ci Ousmane Sonko war na ko def moom mi dul candidat. mais yeggaleel rek ma gëm la maa yow yow yaay posé question yi. <laughs> yow. allez xam nga sànq maa ngi doon commencé wax ci investiture yi. Mhm. yeggaleegu ma mu dagg ma ba. yeggale ba pratiquement waxatuma sax ak Sonko ñoom la Issa wax waxal ci Ousmane Sonko léegi li li may wax. du te moo ngi wax. waaw oh, doo bàyyi jàmbur nag du candidat bàyyi ko mu ñëw. du candidat kay war kaa mën a baax dañuy bañ nga di ko ji waaw da ngay may bàyyi ba dina ñëw Sénégal que parti pris parce que boo yemee ci Amadou te waxoo ci Ousmane Ousmane Ngom dootu mën a tontu ci Ousmane Sonko dootu mën a tontu man man man euh, encore une fois je pose les questions ce que je je pose comme question ma bi c'est très clair je dis clairement euh, euh, treizième législature les députés yi fa nekkoon man c'est le constat que j'ai fait et je ne suis pas le seul dañu am du mal à défendre le bilan. daa baaxul woon muy benn beneen bi mooy à part de cet instant là est-ce que ñi ñu investir ci liste yi que ce soit du côté de l'opposition comme du pouvoir. Ah, est-ce que mën nañu euh, def lu gën législature bi ñu génn. merci ma je parle pas de Ousmane Sonko ça m'intéresse pas. merci ah, allez-y moom moo ko wax. Mhm. Euh, de toutes les façons xam nga euh, discours opposant mhm. ak discours ku bëgg nouveau mandat mënul doon benn mënul yem. Mhm. mënul doon absolument pas benn hmm. yow déjà ki nga xamante ni mu ngi fa woon di laaj beneen mandat hmm. kooku il est obligé mu def bilan mu wax ne nii laa yoree woon askan wi kat yéen yéenay xool ndax lii ma yor doy na leen hmm. da ngeen may bàyyi ma yeggale ou pas. du président Macky Sall noonu la faluwaatee. te sax seen bilan bi xëy na bu leen neexoon wax ci ne on a facilité euh, au président Macky Sall euh, yenn chantier yi par par nangam ak nangam ak nangam amoon nañ ci droit. très bien oui donc du ñu def bilan. parce que amuñu bilan. bu positif bu ñu mën a jaay sénégalais. moom ñu fàttali ne aussi ñu ngi ko investir fële à Tivaouane. am nañ doo waaw doo ma bàyyi ma wut fi wax fi ma ko teg. ba waxal waaw wax bàyyi ma wax fi ma ko teg rek. ko bàyyi ko après nga ah, xam nga xam nga xam nga tout à mu ngi tudd euh, euh, euh, ñoom Bougazeli. oui tudd les députés yi ñu jàpp. trafic mhm. trafic visa yooyu. Mhm. mais pour man. njombe bi assemblée nationale gën a def. Mhm. mooy votel ñu loi parrainage bi sans débat. Mhm. le 18 avril 2018. Mhm. votel ñu ce parrainage là sans débat pratiquement élection yi fi indi coow yëpp 2019 ba léegi parrainage bee koy indi te assemblée nationale bi moo ko voté. beneen catastrophe bi nga xamante ne assemblée nationale bi def na ko. mooy lever immunité parlementaire Khalifa Sall. xaaju guddi daa nu mu respecté wuñ benn règle. donc pour man. Euh, fee yooyu. ñoo gën a garaaw sax le fait ñu ne jàpp nañ Bougazelli mu créé banque këram moo gën a garaaw ñu ne ay député dañ doon def trafic de visa. Mhm. ñaari ñaari ñaari loi yooyu. Mhm. mais bu nekkee da bëgg ma dolli rek baal ma dem léegi liste yi liste yi nga xam ne moom moom la ñu am en face waaw est-ce que ca euh, laa doon daane léegi parce que dama si bëggoon dem démb dolli Dembourou Sow mm-hmm. après ma doog a ñëw fi nga may wax noonu mm-hmm. parce que Dembourou Sow moom mu nekk seen député tamit wax na fi loo xamante ni tey bu ñu doon def bilan assemblée nationale mënuñu koo ñàkk mm-hmm. souligner parce que c'est tellement scandaleux kooku dafa waroon a dafa ba mu defee déclaration ba ca Ranérou Sénégal yëpp téye seen gémmiñ mu ñëwaat ba assemblée nationale. Mhm. parce que dama wax toujours ne assemblée nationale soo taxawee ci micro boobu di wax. Mhm. waxuloo ak député yi nga jàkkaar lool askanu Sénégal ngay waxal. Mhm. donc booy wax ak askanu Sénégal di leen wax ay pël yi nañu jël jaas yi défendre troisième mandat wu Macky Sall pour man benn askan wax la loolu. te yow mënuloo wooyee sa bopp représentant du peuple. léegi nag moom wax na nee na ñi doon déborder noonu. dindi leen ci liste yi gis naa si benn koo xamante ne nii man maa koy woowee bëy bu musóoru parce que jàpp ma ne nit la mais mu ngi seen liste kooku def na fi vidéo wax ci wax ju ñaaw joo xamante ne nii tax na waxuma la sax ma dellu ci waxam ja mais moom ma jaar ci turam ruus naa ko mais kooku wax ju ñaaw jooju mu wax war na tax tey sénégalais bu ne ah mu rayante pour kooku bañ a nekk député parce que ñu ñu fi lim ñëpp kookoo leen gën a ñaaw làmmiñ ñi ñu fi lim ñëpp kookoo leen gën a ñaaw làmmiñ te mu ngi ci listu Benno Bokk Yaakaar yi te lenn mooy profilam hmm. mooy nit ñi xamee nañ ko saaga bi ko président la république di recevoir mais nit amul lu ñu waxul c'est parce que saagakat la ku contre Macky Sall mu yàq la lu mel ni xeme bu dee dafa yem sax si yàq lu mel ni xeme nga ne waaw mais da tàggal say maam ak say euh, ancêtre wax la lu ñaaw a ñaaw a ñaaw kooku tey bu lis Benno Bokk Yaakaar yi falo mais day dem assemblée nationale xam nga ñu ngi def woon a interview bi nit ñi di kaas ne hmm. pourquoi journalistes yi di tàllal nit ku mel nii micro mais kooku Moustapha liste Benno Bokk Yaakaar bi bu jàllee. Hmm. waxuma la micro mais day dem taxaw assemblée nationale di wax pour askan wi yëpp. Hmm. di wax pour askan wi yëpp te kooku. Hmm. mais doxal fii rek par hasard koo njëkk dajal jàppal ne moo ko gën moralité. d'accord alors. Hmm. mais mais ñu fàtte dara aussi Moustapha parce que dafa wax sànq ci Moustapha Niass. mu ne mu ne Moustapha Niass euh, euh, on rappelle aussi que Moustapha Niass nekkul woon euh, dirigé woon la coalition Benno Bokk Yaakaar nekkul woon seen tête de il était sur la liste de Nioro moom ak Jéema Ndiaye Ba. voilà donc liste départementale bu Nioro ko fale. Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ko jiite woon Ndeye Fatou Diouf après Moustapha Cissé Lo Aminata Gueye. parce que douzième bi la jiite. Moussa Fall ñu daaneel maam Biram waaw ci parce que là il faut ñu. c'est que xam nga mission wu. mission wu dafay àggalewul. mission uh-huh. mission wu député yi. Mm-hmm. xam nga euh, dañ koy wax rek di ko coof nii monsieur le maire mu ngi wax ne am nañu rôle de législateur. Mm-hmm. c'est vrai c'est très important. mais mm-hmm. man dama jàpp ne bu ñu nekkee dans un pays comme le Sénégal. ñu mën a wax ne ab géwélu président Macky Sall sàcc nañ près de un milliard këram. dëkk boobu député yi. li ñu war a gën a jiital ce n'est même pas la voter des lois mmh. mais mooy controler l'action du gouvernement parce que xaalis bi ñuy jëlee ci kër yi mmh. mais jógewul fenn fu dul ci xaalisu askan wi du dëgg donc tey ci crois à ces euh, fake news si yow non non c'est léger monsieur Diarra bu ma coupé léegi ce que je mooy que tey contrôle contrôle de l'action du gouvernement mmh. maanaam euh, état bi <laughs> bu ñu jëlee exemple bu ndaw rek 766 milliards. Hmm. yoo xamante ne nii xooj nañ ko ci ndox mi te kenn amul gisul trace. Hmm. bu député yi taxawoon mais li gën a ndaw te constitution bi permettre leen ko. Hmm. article cinq nga xam ne député bu ne mun na ko revendiquer. constitution amul loi bu ko sut ci réew mi. permettre leen ñu poser à un euh, au premier ministre. et à tous les membres du gouvernement question écrite te ñooñu ils sont obligés d'y répondre mhm. voilà voilà ils sont tenus non non xaaral pareegu ma mhm. c'est que xam nga euh, ma ma ma daaneel mhm. ci commission yi parce que dafa am commission yoo xamante nii mais elles sont fondamentales. Mhm. wax naa ko dernièrement ma ne en France bi en 2008 bu ñu defee seeni réforme ñu ne léegi président commission parlementaire euh, président euh, commission des finances bu assemblée nationale léegi opposant lañ koy jox. Mhm. ba ki ko mujj yor mooy Éric Woerth nga xamante ni mhm. farul ci gouvernement bi. léegi léegi. commission boobu xam nga lan mooy xam nga lan mooy njëriñam. mooy am na possibilité euh, société publique bu mu munti doon. bu ñu sentiree ne am na ay difficultés. moom mu créer une commission boo xamante nii du nekk mission d'information de. mais pour auditer bu ma jëlee exemple euh, la poste bi nga xamante ni tey lu mu xalangoo jaaxal na Sénégalais yëpp. Mm-hmm. mais tey jii nii c'était normal. commission des finances assemblée nationale procéder à un audit foofu pour déterminer. Mm-hmm. naka la une société publique. mën a amee chiffre d'affaires de huit milliards ba pare di fay masse salariale de dix huit milliards mais loolu euh, nañ ko waroon a xool. Mhm. lijjanti ko ba mu leer nañ te loolu député yi ci lañ lañ doon xaar. parce que xaalis bi nga xamante ne nii. Mhm. xaalis bi nga xamante ne nii. Mhm. moom la askan wi euh, moom. ñu jox ko ay gouvernants ñoom ñoo ko war a contrôler. te commission des finances boobu Mame Birame mi ngi bëgg baax na baax na ma yemale ko alors Pape Sané ñi ngi wax euh, ci wax na tuuti ci listu Benno yi ak li nga xam ne euh, moom moom la ci jor a mais soo demee également du côté de de Yewwi Askan Wi ji nga xam ne ñooy ñun jàppoon ne ñoo am les bons profils je je rapporte juste ce que j'ai lu pour dem assemblée nationale ñoo ils n'y seront pas ñi ci des ay ay ay ay suppléants lañ alors moi j'ai j'ai pas euh, ni ñu ko waxee comme ñoom Issa def liiruma liste suppléants yi ba ku ci nekk ma xam profil am mais est que yaakaar nga ni avec des suppléants ñoom bu ñu demoon à l'assemblée mën nañu am niveau assemblée euh, wala législature bu gën bi nga xam ne moom la ñu génn. wax fa yàlla. te loolu sax monsieur le maire ci d' accord à dire que ñooñu bu ñu demoon assemblée la liste titulaire de Yewwi mooy que le niveau de l' assemblée va nous rappeler ces fameuses yi nga xam ne ñoom maître Ousmane Ngom kii euh, ñoom Boubacar Sall ñoom Abdourahim Agne mhm. ñoom ñooñu c' est à dire voilà ce ce charme là daañ ko amaat à l' nationale